bëggee di jot ci vidéo yu am njëriñ yi bàyyi ko fii ci sama diine TV da ngay ñëw bés fii ñu bind sabonné soo noppee nga daal di activer bi mooy waral benn njariñ du la raw. bu fekkee yàlla daf laa nattoo yaram wuy tàng am na ñoo xam ne loolu mooy seen feebar seen yaram day tàng dangay jël ñetti kuddu lem. attention lem laa wax lem yi ci dëkk bi bëri na rawatina fii ci ndakaaru taddu lem. dama bëgg ngeen bàyyi ci xel Sénégal la bëri mais ndakaaru moom daf fee ñaay li fi nekk ci lem gu ñuy jaay te ki moog lem dafa mel ne lem dafa jaar penku mu jaar sow suukar lañuy jël togg ko boole kook tàndarma wala am na yeneen xeeti composant yoo xam ne boo ko boolee ba pare day mel ne lem am na sax xeetu garab yoo xam ne boo ko tegee ba mu yàqu day niroog lem. légui nak dafa bari lem go xamné sukar sukar togg lool nak musiba la nak xam sukar mom moom am ño xamné tandarma ju toy ji lañuy jël togg ko riij ko riij ko riije riij bam don bam mokk rumbax ñu boole ak lem def ci ndox togg ko ñu boole ak sukar bok la bëgg wax def ci ndox togg ko buñ noppé mëno ko xamé ak lem mais lem pire dafa am légui lem pire gog ngay wut nga jël ñetti kudd lem def ko ci kaas jël li nga dagg ko ci digg bi nga pacal ko ci ba mu jeex nga jël ndox def ci ba mu paase digg nga yëngal ko ba mu jaxasoo nga naan ko wallaahi alxasim mën naa laa insiréel fii ma toog te ku ko def gisoo ci njariñ buñ toogaatee ajuma di wax wooteel ne def naa ko te gisuma ci njariñ lii di biir buy metti yaram wuy tàng yaram wuy xasan gaaw a sonn di lekk taru rees wala di yëg ay mettit ci sa yaram wala ballonnement yii yëpp da koy saafara te docteur yi may dégg ci wàllu médecine moderne lii may wax mën nañu koo dëggal ndax am na ci yoo xam ne ñun buñ ko gisoo ba noppi ñoom buñ dikkee dañuy daje dañuy daje ci gëstu bi daje yitam ci résultat yi muy daje ci ne ndekete ndekete ñun liñ ci xam lu ko raw ngeen ci xam loolu yaakaar naa docteur yàgg nañu ko wax waaw. bu bëggee di jot ci vidéo yu am njëriñ yi bàyyi ko fii ci sama diine TV da ngay ñëw bés fii ñu bind sabonné soo noppee nga daal di activer cloche bi mooy waral benn njëriñ du la raw